bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah internet yi ñu ngi leen di bégge bu baax a baax a baax di leen ziare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen mu mel ni ki nag comme ni ngeen ko xamee démb 19 novembre ca arène nationale jàmbaar production tëggoon combat boo xam ne ni yaakaar naa àddina ñoo ko doon xaar mu doxoon ci diggante Siteu tarkindaa bu jàmm gën bi ak la jatoo muy Lac de numéro 2 doomu way combat ba nag ba mu jeexee lag moom moo am ndam par avertissement parce que boo xoolee bëri nañu ba temps bi jeex maanaam bëri bu méttee méttee métti bëri bu intense boo xoolee bëri bi démb di nga xam ne ñaari mbir yi doon bëri maanaam démb ku ci ne joxe nga la nga am waaye nag la père Max doon wax rek ñaari ndamay dugg mais benn ay génn dem nag benn ba ba mu génnee fii ci géejuwaay la ñibbisi ci biir kër Lac de Guiers numéro 2 kon champion ñu ngi lay félicité di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw euh, Babacar maa ngi lay nuyu baax a baax di nuyu sa mbokk journaliste yi caméraman yi ñëpp di nuyu fans yi ñëpp. Mm-hmm. bàyyiwuñu kenn. Mm-hmm. di nuyu képp koo xam ne ngay bëggee la de Guiers numéro 2. Mm-hmm. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daal. yaa ngi sant mais Lac dinaa la xaw a tooñ tooñ tuuti ah yi moom. Ah? waaw. a beaucoup de jàllabi avec toi. Talibé Cheikh. Talibé Cheikh. Ah, waaw wax nga dëgg waaw parce que boo fees. wala nga dem dëkk yooyu. jàllabi moom macha allah. moom de Talibé taalibe Cheikh la. démb bu weex nga sol balaa ngaa dem làmb ji ana boobu. Ah, ma ngi fi est-ce que est-ce que aw ma ci trois cent. yu weex yi boobu dem tegtal la woon wala da nga ko solo nii rek pour sula pour. lu weex ah lépp gis jàmm da ciy baax di sol lu weex. parce que démb dama seetaan ci sa ay ci ci ci ci combat bi démb. Hmm. gis naa fi suukar. dëgg la ñu ko. gis naa fi benn pël bu gudd buñ def soow xaw ma soow ma suukar suukar nañ ko ou pas gis naa fi pom saaku ceeb bi gis naa fi ceeb maanaam balaa dem dafa bokkoon ci say tegtal wala waaw mais noonu lu xam nga man yooyu man du ko faral di res ñi nga xamante ñoom ñooy dox ay cadre ministère ñoom ñoo non yooyu du ma ko du ko kii man ñoom lañ ma li ñu may wax rek moom mooy da ngay préparer sa combat entraîner côté mystique bi ñoom ñoo ko yor loolu ngay gis noonu yëpp xaw ma ci dara. xamoo fu mu jógee déedéet xaw ma benn fu mu jógee. ngay soosa bu toll ni yow séeréer bu toll ni yow. waaw. ci nday ci baax yi nga ne xamoo fa fu jógee. ah bagage yi de ñu ñoom ñu ngi nii toog. ñoom toos waaw ñoom ñoo dem jëli bagage yi indi. Mhm. dem fii dem fii dem fii jeex na. la nga bëri koo xam ne man ci li euh, euh, li am mooy yaa ko may sens muy Siteu. Mhm. muy xale boo xam ne na ma ko waxee laa koy waxee waat maanaam du sens du du du maanaam du sens moo ko bëriloo ak yow mais mérite la. parce que da ngeen a bokk ñaari adversaire ci seen biir carrière muy Zos muy Papa Sow ku nekk daan kenn yàlla di dogal bañ na grand contre yow nga jël xale bi nga xam ne bokk na ci xale yëpp coow ëpp mbooloo bi ngay jël Siteu am na yeneen xale yu fi tege woon nga bàyyi leen fa jël Siteu wala Siteu rek ñëwoon nga jël ko non Siteu la ma wanoon la moom moo tax rek moo tax ma jël ko en plus moom bokkuñu bokkuñu yoon ma am yéene pour may ko sens rek moo taxoon ma may ko sens waaw mais du woon dara nag a dëgg la bëri naa ñaar nit xam ne daan naa leen mu daan leen ñoom tamit xam nga la mu respecté ma moo tax ma ne naa ko may sens nit boo nekkee ak say mag yaa waxim dafa war a rafet rek ñu bañ ci tollee noonu la woon pour suñuy mag may ñu sens la fallait que ñu respecté leen jox leen cër cër boobu la ma joxoon moom moo tax ma ne naa ko may sens. may ko mm. ñu dem ba ci biir mais nag cër boobu dafa teggee ko ci biir làmb ji parce que dafa dafa xaw a déstabiliser ci communication Siteu. non non non non loolu amul. làmb ak loolu ñu ànd. ñëw na ku nekk nañ koy yore moom ñëw na pour jaay làmbam fekk na koo xamante ne mentalam dafa baax ñëw nañ communiqué na jaay nañ làmb ji bon yàlla def na li gën ci man. jaay ngeen làmb ji mais man balaa may ñëw sax ci euh, mbir yooyu damay ñëw ci biñ ko mayee essence ba pare ñu bëri. li ñu doon wax li ëpp bu dee dix sénégalais nga jël huit yi wala set yi dañ na yaa kopp doole Siteu li mu dugg du ci génn communication boobu bi ñu koy dégg ci sénégalais yow en tant que mbër mi war a bëri loolu noo ko doon noo noo ko doon recevoir yow noo ko doon déggee waaw xam nga tey sénégalais yi ñoom ñëpp li ñu gis rek la ñuy wax yaa ngi dégg la dégg moo ko jiitu ci làmb moo ko ëpp doole xam nga c'est normal ñu wax ko mais tamit mbir mi daal yow kii euh, Babacar affaire dafa yéeme daal. naa lépp lépp lépp naes na daal bëri nañ. xam la yàlla may na ma ndam ñu xoolaat leneen nekk suñu kanam. xam nga da ci waxaat da ci waxaat nii xam nga da ngay xaw a dafa yéem am aw yoon ba yegg si fii. waaw bu ci amoon. dëgg la que ni Lac de Guiers moo ëpp doole si si tamasta nangu loolu. Mm-hmm. démb nag bi ngeen ñëwee ci géew bi tamit dafa mel ni loolu lu mënti xew man maa ngi wax sama biir reportage que ni Siteu mu ngi tenir Lac de Guiers. tey dama doon wax ne Lac Siteu mi ma gis ñu naan amul doole amul doole mais Siteu dafa mel ne néewul doole la. Mm-hmm. non man waxuma dafa néew doole ndax jàppante ne entraîné na. waaw entraîné na comme ni ma entraîné rek. liggéey na comme ni nga liggéey. waaw ah, liggéey na mais liggéey est que ci biir kawam mu ngi lay tooñ ne la ba ngeen tànnate mu ngi naan loo loo yëg. ndax moom moom la ñu war a wax moom lu mu yëg. mais yow loo yëg ba ngeen parce que parce que moom moo doon wax naan aw ma doole. dama punkar rek aw ma doole waaye bañ dalante moom xam na lu mu sentir mais yow centre dara ci mu ngeen bon bon entraîne na bu ñu waxante dëgg xam nga nit kam doo jël sa mbër mbër doo jël mbër mbër nga doo entraîne entraîne moom def na ko moom waaw parce que ko njattee ñu bari foon lam di foofu mu génn ci ci ci action boobu non bi moom moom ni mu taxawee boo seetlu ba ma ko njattee boppam bi fa mu nekkee moo baaxul ci man ah. boppam bi dafa xaw tegu sama catu pokotaan moom moo tax njatt bi baaxul mais bu xawoon dugg te njatt day jóg mais man ci bëri dama dem si koy bëri yow saa jàppante roccoo daw ci kaw xam nga tey bu Siteu mën bëri moom moo tax ba ñu bañ dawee jàppante maak moom mu jël boppam teg ko fii boo fi tegee nit dootul bëri da ngay xool sama combat yi kii man foofu laa teg sama bopp fii boo fi tegee nit boo defee nii doo mën a gis li nga bëgg def il faut nga jéem a négocier ba sa bopp génn ba boppam génn ba boppam génn ngay soo ko gis li nga def uyul am na ko ah, par exemple euh, dañoo wax ni que mobilisation bi nga xam ni surtout am na ko bi muy génn jàmm gën c'est ce contraire ak yow lu tax waa Guédiawaye mobilisation boobu bariwul ci sa côté deuxièmement bi tamit euh, waaw vas-y mobilisation bi gars yi génn nañ waaye mais xam nga lamb moom noonu la waa Guédiawaye génn nañ ñi mën a dem dem nañ stade am na loo xamante ne tey euh, ñi la doon jàppale ñu bari bu yàlla defee ne ñooñu xam la ñëw ñu à cent pour cent da ngay ree ba tas mais sant yàlla peut-être dañoo nekk ci ay yitte mais li ma mën li ma mën def naa ko gisante naa promoteur bi jënd naa ci moom ay nombre de billets yoo xamante ne tey waa boole Mansour ci caméra laay waxee moom xam na xam na yaa ngi dégg tey am na ñoo xamante ne dugal nañ seen loxo comme lu mel ni comme euh, la Diop yaa ngi dégg tey euh, euh, Baara Gueye yaa Modou Gueye tamit dugal na loxoom a cent pour cent euh, kii mu tudd sax Aziz Ndiaye ñoom dugal nañ seen loxo mais tamit sant yàlla tey peut-être loolu la yàlla dogal ñu xaaral prochain combat incha allah. ci sa biir wax tamit bi nga toogee plateau danga ni man kenn du ma saraxe après nga jóg dem lu mu kenn du ma saraxe bëgg nga décortiquer ko rek parce que am na ñu bari ñoo xam ne comprendre non la ay tooñ la rek man maa doon wax noonu rek. ay tooñ la nag la mais question bi ma bi la posé. Ah, man maa doon tooñ rek man maa doon tooñ dafa am ku ma doon waxal noonu ci suuf. Ah, question boobu. Mm. ok merci c'est bien ce que tu xaar bañ pare fii. waaw ah, xaar bañ pare fii tontu. waaw léegi nañ waaw waaw ñu continuer. Euh, xam nga léegi abu dafa dugg ak yow ci biir combat bi mm-hmm. ci biir Siteu bu la jàppee day ndengeñ effectivement mm-hmm. damay gis ne day ndengeñ parce que mm-hmm. yaakaar naa loolu jaadu na mais benn moment tamit Siteu xeex na ak yow jël si la bi mu dawee sëq sa ma gis ko loolu nga xam ne bokk na ci ay bëreem mooy daw yëg la mu la ca ginnaaw kal la yaa ngi dégg foofu tamit pour man di nga dem foofu noo def ba génne ci Babacar nee naa la man damay bëri wala na ngeen comprendre damay non wallaay damay bëri bëri rek laay def gis nga moom dawee ba seex ma noonu boo xoolee ma mbéj bopp bi bopp bi laa bloqué ci kaw ba pare pivoté génn fu ma taxoon hmm. parce que xam naa ne su ma fa taxee dina ma yóotu calme yaa ngi dégg ma pousse bopp bi désesté génn fu ma taxawoon foofu noonu ma génnaat côté boobu noonu parce que bu fa taxawoon moom daf may gën a seex te bu seexee daf may yóotoo calme hmm. moo tax ma pousse bopp bi génn fa ma taxawoon génn foofu léegi yàq naa tànkam ba mu waroon kale. Euh, ardo bi parce que benn moment ardo am na ci combat bi. mu dem su ma jumu trois fois yoo xam ne euh, bi mu njëkkee dem ñëwa ñëwaat na dem ñëwaat dem parce que dafa continué woon di naaj ban moment la ko la tuuse ba loolu am ci combat bi ak foo ko dóor. waaw am benn xam ne direct direct du gauche la boo xamante ne daf ko dal. Euh, fii ci hmm. bakken bi. ak épicute yi nga xamante ne moom moo génn foofu noonu. waaw yooyu ñoo ko gaañ. mais Babacar ci moment songoo jàppante noonu si la épide di génne. ok dafa am lu ma gis ci ci biir combat bi ba ñu mitaan yi ñëw parce que Lac de foofu dafa mel ne dañ koo conseillé que ni dama nga jeexal combat bi. parce que bëri na fa bëri benn bëri heure bëri si te dóor ko ñaari rafal góor ci dal ci biir combat boobu noonu lan moo waral Lac de Guiers bëggoon gëdd si te jeexal combat bi vite fait ci heure boobu noonu ba jël coup yooyu. xam nga ma ñëwee ba ma ñëwee di ko attaqué moom dafa muus su ma nee gërët day arrière yokk pas ci ginnaaw. yaa ngi dégg su ma gëddee mu arrièreaat léegi am na benn gëdd bu ma ko gëdd sama tànk ba mu tegoo dafa xaw a tarxis tarxis bi nag gars ma mii teg sama tànk ci suuf sentir naa ne dem naa mu jékki-jékki indi gauche droite. maanaam bi pour nga taxaw la wala pour freiner. waaw gauche droite ko doon képp mu taxaw la. waaw ah. parce que combat bi dama gis ne yéen ñaar dafa am lu ngeen doon wut pour man. Mm-hmm. yow daa am loo looy wut parce que dama koy faral di wax Lac day song te bu la fekkee fi nga taxaw bu la songee moom day jeex. mais si ta tamit des fois saa yoo ko songee. Mm-hmm. dafay mbëru tànk. Mm-hmm. bu lu dóoree tànk da ngay surux daa mel ni loolu tamit bokkoon na ci lu ngeen doon calculer yéen ñaar ci biir ci biir bëre bi de. non man su ma songee du échec de. waaw ah, loolu laa wax. moo tax ma ne si tamit daa mel ni xam na loolu. moo tax taxaw moo tax taxawul benn yow itam bëggoo koo songi ndax xam nga ne day bëree tànk song mu wóorul parce que damaa gisul lu ma si song waaw moom laay wax te saa bu ñëwee sama song bu ñoroon da koy da koy tënk féete suuf waaw ndax bu la féete suuf bu la fële mën mën na la daal dama vaasi <laughs> xam nga moom ni mu taxawee bu mënee yunn pour ñëw day arrière day yàq jàng yi yaa ngi dégg dem taxawee côté bi heure bu ma toggee pour mu ñor su ma ko ne gauche gauche gauche mu taxaw fu mu taxaw su ma bëggee ñëw day yàq jàngi génn foofu noonu yaa ngi mais tamit bon am na conseil conseil nañ ko. xam naa ne masque mbargaan moo fa jaar. naan tel du ngaa du ngaa ko père boobu. kon da nga euh, différence âge bi kit euh, poids bi ngeen am le fait moom mu nekk cent huit yow nga nekk cent et cent quarante je ne sais pas bi nga doon est woon mën a gaawal combat bi doole bi différence bi dafa bari de trop. mais foo mës a gisee poids lourd bi gaawal combat. <laughs> waaw du poids. non poids lourd du song. poids lourd day direeku pour gars yi xam. poids lourd boo gis mu song mooy lor na boppam. poids lourd moindre moindre geste rek nga def quatre appuis. Mm-hmm. <laughs> te dem na nga sóor ci biir combat bi. da nga ko doon sóor xanaa da nga ko non parce que mbër buy pesé cent quarante kilos ak kuy pesé cent huit kilos wala cent dix kilos moom moo war a ñëw song man ba ma ciy toll man ba ma ciy toll samay morom dama leen fekk jax jëlee leen fi ba ma fekkee samay grand ci làmb ji dama yor benn poids ñoom ñu yor poids plus que man da ngay xool sama combat yi gii dama ñëw jëlee ko fii moom kay moom moo waroon ñëw song mais man li ma waxoon def naa ko li nga waxoon def nga ko mais am na ñoo xam ne ba tey jàpp nañ ne Siteu lii ndam la ci moom parce que yow par rapport ak doole bi ak pois bi ak ni ko ndaw si waxee ak jiitu làmb ji tam parce que yow 2004 nga ñëw moom mu ñëw 2009 mm. ñu bëri jàpp ne kon mm. yow yaa amoon faveur yi ci côté boobu boo xalaate yaa amoon faveur bi kon ñu bëri jàpp ne kon combat bi donc ko waroon jeexal ak Siteu ci jël wal bit gàtt <laughs> gars yi dañoo yaakaar ne léegi bu ma jël rek moom du am ay mbokk yu muy dem wëri loolu làmb kay boo amee boo boo jëlee la dëgg la dëgg képp ko di jël rek di nga dem ànd ak sa mbokk jëg sa bopp dëgg dëgg dëgg waaw. waaw mais pré ah. no parce que lag la mhm, lag la. et puis lag lan moo tax tamit parce que man bon ak lu man di wax sa combat sa carrière ba mu commencé 2004 ba fi ma koy waxee tey gisaguma mbër daan la ba toog sa kaw. loolu tamit lu tax. waaw lan moo tax. waaw waaw ah, loolu moom dañ koy laaj Allah. non non loolu moom loolu moom mënu ma la non non non non non non déedéet Babacar Babacar kaay ma wax la ba gis nga jëb yi bu yàlla tuddee damay daanu wallahi bu kenn dem ñaan damay daanu par force non man dama bëggoon xam sa maanaam ci sa bëre la sa doole la wala mm. say adversaire mm. ñoom ñoo amul argument yu ñu la war a jàppe daan la ba nga tëdd quoi loolu laa bëgg a xam loolu nga bëgg a xam entraînement la entraînement la hmm? rek man sama entraînement du moo ci kaf du ma ci foofu. parce que parce que parce lan. da ngay liggéey lu li may liggéey ñoom duñ ko liggéey de ñoom ak seen liggéey man ak sama liggéey. mais da waaw man damay na parce que yóbbu ma samay fans. Mhm. ba ñëw ci làmb ji summeeku ñu xool ma yaa am jéppi ma bugguma loolu. Mhm. yaa ngi dégg su ma ñëwee ci làmb ji balaa làmb ji ñëw sax dina entraînement yi metti gis nga ba ci combat bi te entraînement ji ba feebar ci. wallaahi. bañ perfusé ma fi ñaar yoon kay mais tamit bon parce que loolu yëpp ndam rek laa bëggoon ndam rek laa bëggoon parce que bëgguma samay fans di mer man bëgguma loolu. ndam li ni ko amee neex na mais ndam ndam la ndam ndam la neex na de. Mm. ndam ndam la rek am na ñu ko fi am te pourtant bañ ne laa yeneen ña neex na. Mm. Mm-hmm. ndam par neex na neex na ba fu neex yam ndam la rek. waaw. waaw Adja bi mu ne ndam li fu mu la mën a yóbbu. ndam bi yóbbu ma fenn en tout cas neex na neex na mais yóbbu ma fenn. Hmm? pour te dire la non yóbbu ma fenn xam nga moo tax. waaw surtout bu ma daanoon moom moom ndam dafa am fu mu ko yóbbu mën na ñax moom mooy roi des arènes. bu la bu ma daanoon mën na ñax moom mooy roi des arènes. yaa ngi dégg. Hmm. te yàlla def na ne xam la daanu kon kenn ndam bi fu mu man dama yóbbu ma fenn maanaam yóbbu la fenn daal. sentiru ma ko sax fu mu ñu ngi sibile kontaan nañ c'est bien bon mais man ko kontaanu ma daal. parce que man man ndam bi. xam nga la ma xam nga la moo tax. bon euh, maanaam daf sentiru ma ko daal man daal li ma bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. mais nag bëgg. ah loo li ma bëgg moom mooy ñi nekk ci kaw. kan ci ci kaw kay si ngi ci kaw. moom nga amoon dem kan ci. wala ci kaw da bëgg a laal da nga bëgg feneen ci kaw. parce que refaas ak tafaat nga bëgg. ba léegi waxuma leen lool de. ah déedéet ba léegi waxuma fi waxuma lool de. non ci kaw moom ña fa ne. Ah. bëree nga ak Modou Lo fois. Mm. Euh, Eumeu Sène trois fois. Tapha Tine benn yoon. benn yoon mm. yaa ngi dégg. Mm. Ama Baldé yaakaar naa du ngeen bëri. Boy Niang bëri ngeen benn yoon. ñooñu la buñ nee ci kaw ñooñu ñoo ne ca kaw. te xale yi ñëw nañ fekk si leen. dëgg si te dugg na fa. Boy Niang dugg na fa. Ama dugg na fa. Mm-hmm. Sa dugg na fa Reug dugg na fa te Franc kenn du ko tere dugg yaakaar naa loolu la bëgg. <laughs> ñoom ñëpp dugg nañ ci. ah waaw waaw ah, a ngi fa de. waaw Sadio sa ngay bëre Eumeu Sène. waaw duggul. ba Sadio bi bëre booy ñang bëre ngeen mu bëre booy a Gaye. waaw xam nga Balde bëre Modou Lo bëre gi rek Tapha Tine. waaw duggul. dugg ñoom ñëpp dugg nañ. Siteu bëre ak yow. waaw ñoom ñëpp dugg nañ. ah nga bëgg a dégg jël na Bombardier. waaw ñoom ñëpp dugg nañ yegg si nañ. sa bunt lay fëgg bàyyeegu la. yaa ngi dégg kuy Fra. Fra bu ca bu parcelle. ah ok waaw. moom yàgg na lay xéeroo moom. Ah, waaw noonu la seen normal baax na. yàgg na lay tegal métti. waaw ba non baax na man waxuma ci kooku la yow waxal sama affaire man. ci say affaire mais xale yi laa lay wax tey jël nga. waaw ñoom ñoom ñëpp ay champion lañ. Hmm. waaw ñoom ñëpp ay champion lañ ay ndaanaan lañ te ñu ngi ñëw. Hmm. waaw waaye man dama cuunee benn xale. Hmm? dama cuunee benn xale. maanaam lak benn xale du ko. Baba Babacar Lac de Guiers 2 ngay waxal. la jatu. dégg nga Lac de Guiers 2 ngay waxal number two. yow yaay number one. déedéet mooy benn. two waaw mooy ban ñaar. ñaar two mooy ñaar waaw. waaw wax nga dëgg Lac 2. waaw mooy nombre two. mais lan moo tax nga lan moo tax nga jékki-jékki ne Lac de ngay waxal nombre looloo sentir ba wax loolu. parce que noonu la parce que su may wax sama tur damay sama xol day sedd. damay xam ne gaynde daa dëgg la gaynde dëgg la. maanaam ci biir làng gi da nga cee nekk mbër moo xam ne. dama leen sonal dama leen sonal. da ñoo sonal ñan nga sonal. làmb ji dama leen sonal xanaa. dama dama dama dëgër nag. luy loolu. ak ma dëgër bopp. xaayaan dégg séeréer. Hmm? doxalal ñu dem. mais la dëgg combat bi ma gis ne ci côté li nga xamante ne mooy ci côté Guédiawaye wéetoo ci làmb ci en 100% ci côté Guédiawaye ci autorité yi laay laay wax ak yow bon loolu moom mënu ma ci wax après xam naa da ci waxtaan sama tons hmm. xam nga la ci mën a communiquer ak moom bu baax a baax. day rafet yaa ngi dégg. Mhm. ko kalandaar la sama doom la. dëgg la yaa mhm. moom da ngeen ci waxtaan tons. Mhm. mais man moom sama devoir def naa ko. chaque jour que jëfee drapeau Guédiawaye nii laa koy gàddu ba bàyyi lamb. wallahi drapeau Guédiawaye. même bu kenn demul. dinaa continuer di yor drapeau Guédiawaye. parce que la da mu dem ba si ma ne la wéet am lamb ji. moo tax ma ne la. ba ba may di Guédiawaye mooy daw fii. même bu kenn demul même bu kenn demul drapeau Guédiawaye dinaa ko yor ci kàttanu yàlla. fi mu est-ce que la pare na tey tey ngir jëlaat combat léegi léegi bu avance nii. Babacar doon xanaa may ma noppalu. ah doo doo bëri gaa yaa ngi. da doon noppalu fi mu nekk nii su la woon wala Baye wala Makan Dieng. yaa ngi sama numéro woo ma nga indi xaalis. Ah. suba yegg ci. mais lan la ngeen dem bi ci biir làmb ji. lan la woon dafa mel ne démb am nga loo xamante ne da nga koo bëriwaale mu nekk sa biir xool nga ak indaa ko démb ci làmb ci loolu waxtaan ci léegi tons parce que jafe-jafe yi ci bunt bi gis nañ ko mais grave am problème après dina après dina jafe-jafe fa am dina ci waxtaan ak yéen non non buntu ay jafe-jafe fa am wala ay règlement moom fa waaw non non am na question boobu am na fi léegi léegi damay ba buntu ba est-ce que jafe-jafe am fa sincèrement sincèrement parler maa ngi sant maa ngi sant gémi yi fa nekk yëpp mm. maa leen sant di la gërëm parce que tamit ba ma communiquer ak ñoom wax ak ñoom dañoo taxaw déglu ma yaa ngi dégg mm-hmm. ñu nekk nit ñu baax yaa ngi dégg service de l'ordre boobu noonu mention spéciale ci ñoom yaa ngi dégg di sant tamit waa waa waa golf ah commandant Ndoye maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax waaw ñu ñu ba stade aller retour xam nga loolu tamit dafa nekk li nga xamante ni en tout cas ñëpp ñoom ñëpp ñi ñëwoon ñëpp maa ngi sant di leen gërëm bu baax a baax waaw mais démb moom stade aw ma ci jafe-jafe daal aw ma ci jafe-jafe déedéet surtout kay man maa leen sonaloon ah hmm. man maa leen sonaloon sincèrement parler bu wax amee rek. bu CNG sonné rek man maa leen sonal démb. ci la Modou Lo ñëw na démb ma gis ko. mu dem dugg ci stade bi. dem maanaam gën a. yokk sa waay doole. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est ça loolu noo ko gisee. waaw mais noonu lu ko war. li Modou def lu ko war la. waaw lu ko war la loolu dara nekku si. voilà loolu man man man man gis ñu leen. waaw non xaar ñu ñëw ci kii mu ne mu ne Modou Lo xamul. mais mais loolu lu ko war la c'est normal. wallaay c'est normal mu def ko man tam moom bu doon bëree keneen ci waa Guédiawaye noonu lay def rek ah moom lu tax mu def loolu moom la concerne ñoom ñaar la am na lu ñu séq waaw ah, mais maa ngi koy rafetlu daal loolu moom ñaawlu mu ko moom sincèrement par ñaawlu mu waaw ah. euh, gis nañ fi tamit man démb fi laa nekkoon mhm. gis naa fi Sa Thiès moo nag Pape Mama euh, Fall Mbës ak Père Sa Thiès démb mu def ci yow mbégte rek ndax démb wax naa ko ah Sa sama sama rakk la sama rakk la sama waay la yaa ngi dégg ba mu ñëwee fii démb dama ci am mbégte ba dafa fekk may takk ngemb mu ñëw taxaw ba ma takk pare mu taxaw wax ak man ñaanal ma yàlla kon donc jëmm jooju képp koo xam ne yaa ngi géejewaay euh, di ma ñaanal yàlla na ko ñaanal Sa Thiès tamit ci lépp lu mu mënti dugg yàlla oyofal ko may ko ci ndam yaa ngi mu nekk rakk ju baax rakk ju ma jox cër wallaahi rakk ju ma jox cër dama koy wax waxaat ko heure bu amee lu ko métti bu yëkkatu portable am woo ma wax gi dina fu mu jaar ba mu yegg si man yaa ngi mu nekk nit ku dëggu nag mais yàlla na ko yàlla bàyyeeg soxnaam bàyyi ko ak yaayam ca barke Seydina Mohamed xale géejawaay yi tamit boo xoolee du ma ne sax ay xale ndax kooku mu ne xale moo xam naa di nga ma mbéj Alioune Seye 2 ci combat jëm te nee nga moo la jàngal bëri samedi euh, samedi loolu wala dimanche samedi lay bëri moom ak ki nga xam ne moom Modou Anta mu mel ni tamit foofa dina métti daa mel yàlla bu mu métti ci Alioune Seye 2 euh, yàlla bu mu métti ci Alioune Seye 2 maa ngi wax sama mbokk soose yëpp ak séeréer yëpp nañ ñaanal Alioune Seye 2 yàlla may ko ndam hmm? ci barki Serigne Babacar Sy ci barki kilifa diine yëpp loolu laa koy ñaanal yàlla hmm. waaw ndax sama maître la sama lépp la waaw Andaw ñoom ñaa bu ndaw ay bugaan. waa ñooñu sax defe naa ci sa poulain yi la waa ñi ñëpp samay rakk lañ ah. lu ko mel ni Andaw combat bi da moom ma fayam. bu mu fi nekk di wax fi ay waxam moom fii la ñuy ndax moom sama Andaw bopp la. daf ma bëggal boppam. yal na ko yàlla defal jàmm. booy yi géejewaay yëpp. ñoom ñëpp ma taxaw muy Jackson. ñëw na géej contact nañ fa yoon du ñaari yaa ngi dégg ak mbër yëpp ñoom Macha Perera ñoom ñëpp. yaa ngi dégg ñoom ñëpp ñëw nañ jàpp ci affaire bi donc ñooñu noonu amuñu seen fay waaw booy géej waay ñoom ñëpp jàpp nañ ci même ku ñëwul sax maanaam di nga dégg yéeneem ñaan yaa ngi dégg maa ngi sant géej waay ñëpp bàyyiwuma kenn waaw. le promoteur Mansour Ba moom mi tëggoon seen affiche tëggoon démb seen combat moom tamit loo koy dolli ak waa jàmbaar production parce que jeune la. Mhm. te bi ñu duggee si làmb yàggul. mais boo xoolee ay affiche am yëpp. Mhm. qualité lay doon quoi. Mhm. waaw moom. Euh, xam nga mën naa taxaw gërëm ko ci benn côté bi mais damay santaale sama papa per ba ba pare maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam ndax euh, père ba moom tey bu dul moom du ñu am Mansour kon donc ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax dina ñaanal suñ papa père ba yàlla na yàlla sa fan yàlla yokk la ci barke Seydina Mouhamed suñu yaay ji baax ji ne ci kër gi tam yàlla na yàlla guddal fanam gis nga Mansour Euh, tey jeune la bi nga xamante ne ñun mbëri ñun ñëpp ko war a dooleel jàppale ko mu nekk koo xamante ne jeune boo xamante ne dafa bëgg li muy def bëgg sportu làmb kon donc ci bés bi mu jógee nii nañ ko ciy ñaanal yàlla daal yàlla na nekk loo xamante ne réussite totale la ci am yaa ak yeneen combat yi nekkaat ci kanam maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. mais loolu daa mel ni noonu la waay